waaw mu Aliou fu mu jaar moom it. mu ñëw jëlaale benn vidéo ma leen jox ñu ko def. lépp la ñu empêché nii organisation zéro. Thank you.

c'est bon ñaan ko rek. non yéen yéen vraiment vraiment war ngeen a revoir seen affaire non non non non. Hey, eh, eh, hey,